jërë ngeen jëf mbokki internetu DS Prod Media point com DS Prod TV ginnaaw ba ñu leen nuyoo ku si nekk sa tur ak sa sant dañuy dikkat ak yéen li gën a fës yéene kaay du ñu fàtte mukk di ñaanal kilifa diine yi di sàkk su ñoom ñaan ñaanal réew mi am jàmm ak dal ñoom it di leen ñaanal gudd fan at wér gu yaram mbokk si nekk sa mission maam yàlla suñu borom mottali ko waaye du ñu fàtte mukk ñi nga xamee ne ñooy kilifa aada yi di ñuy ki nga xamee ne mooy njiital réew mi ki fi yàlla teg di le président Sall comme ni ma ko daan waxee sama biir wax saa réew bu ñu bëggee mu am jàmm dañuy ñaanal njiitu réew mi jàmm gannaaw ba ko suñu borom tànnee si tànnee fi tabb ko mu doon ab njiitu réew jaarale ko si loxo képp koo xamee ne ab sénégalais nga moom nag mooy ki nga xamee ne mooy dawal gaal gi kon gaal gi si ndox bi bu wengee rek ñëpp weng waaye bu jubee rek kon ñëpp jub moo tax dañu koy ñaan yàlla suñu borom defal ko teral ko ba yéene bu am si réew mi yàlla mottali ko duñu fàtte mukk ñi nga xamee ne ñoom la natt wàcc seen biir kaw mooy sa njaboot waaye tan ak wér ak wérle yàlla defal ko képp koo xamee ne jullit nga di yeewoo fii si réew mi rawatina bitum réew waaye ñi nga xamee ne ñoom la caabi féete seen ginnaaw mooy ñi nga xamee ne ñoo nekk si prison yi ñoom yi dañ leen di ñaanal suñu borom teggi leen boobu leen nattu comme ni ma koy waxee kaso man mi di wax ba yéen di may déglu mbokki interne yu jommul kenn xanaa kay di ñaan yàlla musul ñu si ñun ñi nga xamee ne demaguñ fa waaye ña fa dem yàlla suñu borom génnee leen fa si jàmm ak salaam te ñu bañ faa dellu ci jamono joojee ku nekk fa nga nekk yaa xam fam la fekk mim réew am bitim réew seen xarit seen mag seen rak seen jarbaat mooy bàyyeekoo kàddu bu fii ci Wakaam di Xaadim Njaay di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu li gën a fës yéen kaay yi bokk na ci coow lu Billy ak kii di Marichou ñu gën leen ràññee fële sa maison de la production bu ñuy wax Marodi moom nag si jëmu boppam Billy ak kii di Marichou ñu amoon fi ab coow yàggul dara lu dul ab bébé moo dox seen diggante waaye nag mu mel ni Billy ak Marichou dafa amoon ab relation boo xam ne dañ ko am te mbëggee la ko laloon moom sax Billy demoon na ñaan ki nga xamee ne mooy Marichou waaye yaay ji si boppam moo lànk bu tëdd si suuf si ndax dara warul ko lu dul lu ñu si soow li mooy diggante géer ak géwal pexe yàlla suñu borom moo ëpp doole pexe doomu aadama ndax bu yàlla ne waaw rek léppay changé diggante boobee yàlla suñu borom sotti na ko kii di biri dafa fas yéene jël soxna si kii di marisu fële sa cees suba incha allahu rabi al xayri kon dafay jëpp si digganteet ki nga xamee ne mooy biri ak marisu xanaa kay di leen ñaanal rek yàlla suñu borom gën a dëgëral diggante bi waaye mottali yéene boobee nga xam ne am nañu ko di ñaan yàlla suñu borom sëy boobu lee te barke njaboot bi nga xamee ne moo si barke Karim loolu moo gënoon fës si yéen i kaay mbokki internet des sports média point com xanaa di leen wax rek dig daje si kanam du yàgg dara ak beneen information bu wàcc na mu gën a tàngee te leer fii ngeen koy amee ngeen wéy ñu topp suñuy programme te bañ a fàtte di laal yenn cloche bi si kaw bi tax ngeen war a mën a am yenn information yi bu ma nee yenn cloche yi nag kon ay plateforme laa leen di wax à part chaîne YouTube bi bokk na si Twitter Instagram ak TikTok rawatina Facebook juma mubarak di ñaanal ñëpp am jàmm ak salaam si àjjuma bi si barke Seydina sang-sang yi sallallahu alayhi wa sallam di leen jox dig daje si kanam incha allah kàddu gi nag di bàyyee ko fii si wakkaam ku leen koy jottali Xaadim Njaay seen rakk seen mag seen jaxbaat seen sët di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf mbokki internetu DS Prod Media point com DS Prod TV ginnaaw ba ñu leen nuyoo ku si nekk sa tur ak sa sant dañuy dikkateeg yéen li gën a fës si i yi duñu fàtte mukk di ñaanal kilifa diine yi di sàkk su ñoom ñaan ñaanal réew mi am jàmm ak dal ñoom it di leen ñaanal gudd fan ak gu yaram bokk si nekk sa mission maam yàlla suñu borom mottali ko waaye duñu fàtte mukk ñi nga xamee ne ñooy kilifa aada yi di ñuy ki nga xamee ne mooy njiital réew mi ki fi yàlla teg di la président Macky Sall comme ni ma ko daan waxee sama biir wax saa ne réew bu ñu bëggee mu am jàmm dañuy ñaanal njiiti réew mi jàmm gannaaw ba ko suñu borom tànnee si tànnee fi tabb ko mu doon ab njiitu réew jaarale ko si suñuy loxo képp koo xamee ne ab Sénégal sénégalais nga moom nag mooy ki nga xamee ne mooy dawal gaal gi kon gaal gi si ndox bi bu wengee rek ñëpp weng waaye bu jubee rek kon ñëpp jub moo tax dañu koy ñaan yàlla suñu borom defal ko teral ko ba yéene bu am si réew mi yàlla mottali ko duñu fàtte mukk ñi nga xamee ne ñoom la natt wàcc seen biir kaw mooy ñi nga xamee ne ñoo tëdd si hôpitaux yi fa laa koy dooree yàlla suñu borom fëgg seen i bopp ba si nekk dellu seen njaboot waaye tan ak wér at wérle yàlla defal ko képp koo xamee ne nga di yeewoo fii si réew mi rawatina bitum réew ñoom la caabi féete seen ginnaaw mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison yi ñoom dañ leen di ñaanal suñu borom teggi leen boobu leen nattu comme ni ma koy waxee kaso man mi di wax ba yéen di may déglu mbokki interne yu jombul kenn xanaa kay di ñaan yàlla musul ñu ñun ñi nga xam ne demaguñ fa waaye ña fa dem yàlla suñu borom génnee leen fa ci jàmm ak salaam ñu bañ faa dellu. ci jamono joojee ku nekk fa nga nekk yaa xam fam la fekk mim réew am bitim réew seen xarit seen mag seen rak seen jarbaat mooy bàyyeekoo kàddu bu fii ci Wakaam di Xaadim Njaay di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu li gën a fës yéen kaay bokk na ci coow lu Billy ak kii di Marichou ñu gën leen ràññee fële sa maison de la production bu ñuy wax Marodi moom nag si jëmu boppam Billy ak kii di Marichou ñu amoon fi ab coow yàggul dara lu dul ab bébé moo dox seen diggante waaye nag mu mel ni Billy ak Marichou dafa amoon ab relation boo xam ne dañ ko am te mbëggee la ko laloon moom sax Billy demoon na ñaan ki nga xamee ne mooy Marichou waaye yaay ji si boppam moo lànk bu tëdd si suuf si ndax dara warula ko lu dul lu ñu si soow li mooy diggante géer ak géwal ni pexe yàlla suñu borom moo ëpp doole pexe doomu aadama ndax bu yàlla ne waaw rek léppay changé diggante boobee yàlla suñu borom sottil na ko kii di Billy dafa fas yéene jël soxna si kii di Marichou fële sa Thiès suba incha bi ay alxayri kon dafay jëp si digganteet ki nga xamee ne mooy Billy ak. Marichou xanaa kay di leen ñaanal rek yàlla suñu borom gën a dëgëral diggante bi waaye mottali yéene boobu nga xam ne am nañu ko di ñaan yàlla suñu borom sëy boobu lee te barke njaboot bi nga xam ne moo siy toftal yàlla suñu borom barkeel ko si barke alxuraanu karim loolu moo gënoon fës si yéen i kaay mbokki internet des sports média com xanaa di leen wax rek dig daje si kanam du yàgg dara ak beneen information bu wàcc na mu gën a tàngee te leer te wóor rek fii ngeen koy amee ngeen wéy ni topp suñuy programme te bañ a fàtte di laal yenn cloche bi si kaw bi tax ngeen war a mën a am yenn information yi bu ma nee yenn cloche yi nag kon ay plateforme laa leen di wax à part chaîne YouTube bi bokk na si Twitter Instagram ak TikTok rawatina Facebook juma mubarak di ñaanal ñëpp am jàmm ak salaam si àjjuma bi si barke sang-sang yi sallallahu alayhi wa sallam di leen jox dig daje si kanam incha allah kàddu gi nag di bàyyee ko fii si wakkaam ke leen koy jottali Xaadim Njaay seen rakk seen mag seen jaxbaat seen sët di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu